ci genn niveau bi ci ñàkk jom moom duma ko gëm daana fen nag naan sama làmmi ñu ko ko yàlla xar suñ bamba taxoon ma ne ko léegi da ngay fen musu sa yàlla yàlla làmmi ñu ba ko yàlla xar suñ bam maanaam de mbay peex bu donte ne tegum ñàkk jom ci sénégal dañ koy teggi moom moom moom la ñuy njëkk a teggi moom moom la ñuy njëkk a teggil xam naa ne ku woyee di la te ñàkk jom de waaw man nak kuma bet la bet na ma lol lol lol lool defoon naa ne man ak ñak jom mom yag na ko xam mais ku ne ma won dana dem ba yegg ci genn niveau bi ci ñak jom mom duma ko gëm na fenn nak naan sama làmmi ñu ko yalla xar suñ bamba taxon man ne ko léegi kay da ngay fen musu sa yàlla la mi ñu ko yalla xar suñ bamba taxul won ngay tuddu yalla di jaamu yalla di wax lu baax di jëf lu baax taxon waaye sëñ Bàmba képp taxul suñ sëñ Bàmba moom nga koy tudd nii rek te jëfe te royoo ci moom dara jëriñu ko dara te jëriñu la dara tudd sëñ Bàmba képp te man ngay tudd sëñ Bàmba te doo wax lu baax yow koy léegi fi nii nii sa làmm yi damay ragal na ba ko yàlla xat tudd dafaa taxoon ku ñàkk jom mooy mbay peex waaw mën a fenn ñàkk jom moom sacrifice am nga ba mu ci muccee ba nëgë ne daa mel ni mbaq gun sànni rek kenn xamul fu muy dal ñàkk na jom doye dina waye dina soof na teg ca nag Ah, ak karawam gi sax daay rouge ba day dem ci gannaaw toujours nga gis xànq xànq bi jëb yi gën a gudd jëm ci kanam xànq bi wuti ci gannaaw xam naa ko ñàkk jom a ñu nii